gërëm la Assalamualaikum asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ñoo ngi xel ci ju mag Touba ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit ànd ko ak commission bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu weer wi ci njiitul sëriñ Mouhamadou Mamoun Bousso mu ànd ko ak sëriñ Abdou Diop imaam mi yara kaddu gi waa ànd ko ak waa mu daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Afiye Bousso euh, ñi ngi waat fii ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent ci weer wi waaye ñu ànd ak sëriñ Bassirou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khoudous mu nekk ca Daarul Moxti dox suñu diggante ak waa Tiwaawan waaye ñoo ànd ko ak sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite mbooleem représentant xalif général des mourides yi ne ci euh, Sénégal ànd ko ay tam commission bi nekk Dakar ci njiitul imam Diène ak imam Ndiaye euh, tey jii nag la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ginnaaw bu ñu lee timis Eh, yéene nañ ci ne nañu sentu weer wi bi ñu noppee ñëwaat nañ ci buntu sow bi jàkkaarloog tali alaaji Babacar Kebe Njuga yàlla na borom doole ay leeram eh, kaddu yi nga xam ne nag mooy doon kaddu yu ndigal yi bàyyi koo ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha waxtu wu ne Mamadou Boussa wàcc ci sëñ Abdou Diop imam mu war koo jottali bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ñuy séentu nag weeru safar wi nga xam ne moom la sëñ Touba wax ne na ko jullit yëpp maasee sant la boromam kon sëñ ñu bàyyi ko ak kaddu gi mu jottali ndigalul sëriñ bi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Niko ni ko sëñ sila <coughs> Galass si la waxee rek noonu la demee maanaam weer wu ne sëñ bi doon yebal ci jumaa ji ngir nu yéene fi wax ne nu séentu weer wi ci ndee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu ne waaw bu te ku ci xam lu weer nga ñëw yégle ko bu ko defee euh, buñ ko buñ ko buñ ko yéenee ba noppi dañuy toog ci sow di ñun ñëpp di séentu ak di jokkoo gox yi ngir dajale xibaar yi bin jokkoo nag ba waxtu nag mel na mel mel mel daje nañoo xibaar yu bari yu yu wane ne gis nañ ko ci biir yu baree baree bëri bi ñu nag lañ koo kër sëñ ba yëgal ko ko ba sëñ bi kon joxe na ndigal ne kon ci noonu ngeen ko gisee rek kooku moom it joxe na ndigal ci ñu war ne suba kon mooy benn fanu safar waaw ne ñëpp xam ne kon suba ci altine ji mooy benn fanu safar kon nag ñëpp ni ko xam. kon eh, magal gi alxemes lay doon kon waaw ñu ko ñëpp xam moom waaw màggal gi ñu xam ne alxemes lay doon kon te ni ñaan waaw ni ñaan bu fukki fan fukki waaw fukki fan ak fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett ci ci weer ci weeru sabar waaw dëppee bër bëgg bu alxemes altine talaata àllarba altine talaata àllarba bu alxemes ci lay jógewaat bu ci jógee bu juróom-ñetteeli fan ba mu alxames lay doon. alxames lay doon waaw mooy kon bisu alxames lay doon. kon na ko ñëpp xam noo ngi ñaan nag suñ bi yàgg fi lool te wér te li ñuy wut ci màggal bi lépp yàlla may na ko ci xew xeeti xéewal yi ni war a doxale yëpp mu am ko te am daje ci ngërëmal sëñ Tuuba salaamaaleykum wa rahmatulahi taala waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon xam naa bokk yi rek ñuy bàyyiloo xel ñi nga xam ne ñoo yor réseaux sociaux yi di bàyyiloo xel ñi nga xam ne dañoo tënku ci biir yoonu xam ne déclaration weer wi waruñu ko yëkkati lu dul na ndigalul sëriñ bi moo jib ginnaaw sering bi dafa tànn ab commission boo xamante ne bii ci jamonoy sëriñ Saliou la ko fab ay ñu ko doy jiital ci muy Modou Mamoun imam ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ak kilifa yi ñu ko seqal kon ñu ngi sàkku képp koo xamante ne organe bi nga yor ci yoonu murit lay tënku bala ngaa waxati ne na wala feeñut nañ nekk ba jot ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha ndax ñi koy séentu mbooleem région yi ñi ñu ko fiy séentul buñ ñu waxee ne gis nañ ko it ñun amuñu droit wax ne gis nañ weer wi mhm. dañuy kaddu gi Touba Cheikh Mamadou ak gis nañ ko bu nu sëñ bi nee nañ wax na feeñ na ñu wax ne feeñ na bu nu sëñ bi nee bu leen ne feeñ na dañ naan bu feeñut kon ñun amuñu droit joxe ndigalul weer bi feeñ na ci Sëriñ Tuubaa waxuñu ko kon nag ñi ngi sàkku ñëpp ñoo xamante ne bii ñi ngi ñuy bàyyi xel bala ñoo joxeeti ndigal nañ nekk ba Sëriñ Tuubaa joxe ndigal ba noppi ñu joxe ndigal loolu ndax ndigal benn yoon lañ koy jëfandikoo te sëriñ bee mi ñuy jox ndigal laa tafxalu shay'an bi xayri izni fal isnu shartun fi xaboli saani nuru na jekk nañ mu wóor la na jekk na da koo gën a wóor ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon jërë ngeen jëf day ku am kilifa bu ne da ngeen xam ne nga am kilifa wax day wax ne ñun ginnaaw yàlla dogal na si xar yi doon yaakaar mooy moom lañ la fay dëkk wàllu mën tam ko ci moom waaye ni bëri tàmbali ni weer yi feeñ moo ni da ngaa bëgg a na ci yoo xam ne erreur mën naa taw tey ko di ci réew mi konoon bàyyi xel ci ne yoonu murid daa am fu nu tënk ba lu nu tënk ci kanam tënku Serigne Touba Serigne Mourou Mountakha jokkoo nañ ca kër ga weer yi am nañu ko gis xëy na bu feeñu subaa am nañu ko gis ci Ourossogui am nañu ko gis ca Darou Salam Bomb am ñu ko gis ca Ziguinchor am nañu ko gis ca Kaolack am nañu ko gis fii ci Sénégal sax bu soriwul ci Darou Mouhty kon nu bàyyi xel bàyyi xel ci ni weeru safar kon feeñ na suba ci altine ji mooy première safar mbalem Touba waaye itam mag jàpp màggal gi incha allah rabi e, alxames fukki fan ak juróom-ñett bis bi nga xam ne Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba ci la rañaanoon ci la génne woon e, Mbacke Bari Jolof demoon ci géej gi liggéey la yàlla sa borom